Balthazar nag fële ca Guinée Équatoriale moo jiite li nga xam ne mooy wàllum xaalis mi finance ñu def ko directeur général léegi nag waa Guinée ECOWATRIAR gouvernement bi dañ doon saytu mbirum xaalis ñu ne comme que papa moo jiite affaire yi te moom moom mooy DG bi te manque ne plus de un milliard ak lu teg te wóoluwun ko ñu ne nan ko saytu jàpp ko xool def ko ay enquête ci moom ba xam xaalis boobu fan la dugg ndax danoo njort ne moom xaalis boobu noonu taqe na ta te laal na ca police yi convoqué ki nga xam ne moom mooy Baltazar kattkat bu mag bi dëkk Guinée Équatoriale ba police yi convoqué le meilleur capteur de l'année meilleur que Al Nazir meilleur que Al Buraax meilleur que Al Suruur di albazar ñu invité ko daal koy jox convocation daal di koy woolu ci yoon mu ñëw moom albazar léegi nag ba nu woowee mu ñëw ba mu ñëwee ñu daal di koy enquête daal di jël ay téléphone jël ay ordinateur léegi nag ba nu xoolee ay ordinateur xool ay téléphone am avant ñuy publier vidéo yi di génn ku xool ordinateur bi dangay ngay jooy police bu yernu muy jigéen di góor sa rangoñ day tuuru lu tax muy tuuru parce que Albatazar mi ngi jàpp ay xale yu jigéen di leen kat ku yër da ngay gis kii sa doomu càmmi ña ngi ci kii mooy DG directeur général bi kii mooy yaayu kii kii mooy yaayu kaa nga xam ne ñi muy kat xam nga leen te ràññee nga leen ne kat na leen sa rangoon di tuuri di coot nii la demee ku xool de yi rek da ngay jooy balaa dara xew muy policier di DG di secrétaire moom kat kat bu mag bi léegi nag gars yi ba nu jëlee computeurs yi jël ay téléphone am convoqué téléphone am xaw ma confisqué leen koy wax ci leen gis vidéo yi mais li gën a doy waar ci vidéo yi plus de mille vidéo la du 400 vidéo de ñii ngi naan jot naa 12 ñi naan jot naa jot naa ñi naan jot naa plus de 1000 vidéo la mille vidéo léegi Albazaar li tax ñu jàpp ko du affaire xaalis bi sax de du affaire jigéen ñi kat ndax jigéen ñi mu kat jigéen ñi mu kat seen conscience tranquille lanu àndal ba leen di kat parce que kii benn dafa xees ñaar dafa bari xaalis li tax ñu daal di koy téye mooy dañuy saytu ci yaramam ndax am na benn jàngoro boo xam ne maanaam wàllu na ko ñi mu jot a kat ndax kenn ci ku mu kat kat malien kat na leen trois gabonais kat na leen kat na leen Guinée Équatoriale kat na fa huit Guinée Bissau kat na fa sept Sénégal kat na fa ñaar ci kan bi fee nga xamante si nii moom mooy Gabon kat na fa dix léegi nag bu ndajalee carte gi yëpp da ngeen may déglu da may déglu léegi moom albazar cay maa maîtriser kaa bi barki rasulaay man gën yee ma jox kaa sénégalais joxuma lii de yi ma daan kaa ci yéen lay jógee mais yi Guinée yee ma ràññee xam ne Adama Mbos daan na yëngu ci lii te moom yii domaine am la ñu ñëw teg ko ci sama loxo ma di ko jàllale te man lu ma ciy jox preuve lay doon wàllum kattante du ma ci fen ndax lépp fii laa koy téye balaa daraa xew léegi ma sànni leen ci Instagram bi ñu dem fa mais balaa boobu damay raconter histoire bi yëpp li gën a yéeme ci mbiru albazar mooy ñenn ci ñim doon kat ay jabaru fareeram bu mu bokkal ndey ak baay la keneen ki cim doon kat cousinam la keneen kim doon kataat secrétaire keneen kim doon kat jabaru benn policier la ak benn jabaru homme d'affaires ak koo xam ne nii dafa ëmb ba diis albasar xeebul sax ñu ëmb ñi jox na ko ay koy ci ku ëmb biir koo xam ne daa ëmb albasar kat na ko ci biir ëmbam kii moo nekk te ñeme lëf léegi nag wax ji mooy Abdoul maa ngi lay ziar borom la spécial King Saliou officiel sama xarit bi jërëjëf maa ngi leen di bëgg di leen ziar bu baax waaye jërë ngeen jëf waaw lu waxtaan bi neex neex bu leen fàttali le 7 décembre Wally Ballago Seck moo wati fële ca Paris Adidas Arena jënd leen ticket yi mu gaaw Mia Guissé tamit bu leen ko fàtte sama xarit sama doomu ndey le 28 décembre ma nga fële ca ca Brescia le 24 am na visite tamit ca Brescia dégg ngeen Viviane mi ngi waajal lu mag barki Serigne Babacar Sy ay tournée yu mag yu ngandee ngandetu ponk la jërë ngeen jëf léegi albazar ñi mu katta bëri mais nag ay kattu yéene lay kat kattu yu soxor Albatazar yéen ñi gis vidéo bi boo koy bi tàllalee diggante Ngaye Kébémer koy ba du fa xaj parce que day day da turu du fa am pour mu paase koy bi jóge na Ngaye dem ba gosaas ndax gudd gi mu gudd gis ngeen koy bi wala gisu leen ko dinañ ñëw ci mbirum koy mi après laykat ya nag nu ne burwet ak day saw ci gémmiñu nit ñeeg so albada saara mën a kat léegi nag cent cent vidéo ci yi mu tourné ci mille video yëpp cent vidéo yi ci kan bi passé la kan bi passé Côte d'Ivoire fa la tourné cent vidéo yi yooyu am na ñaari sénégalais yum ci doon kat léegi nag yan ak yan sénégalais ñoo demoon ci kan bi yéen a ko war a xam bala maa ñëw ci loolu kan ak kana demoon ci kan ba ca Côte d'Ivoire cent vidéo yi ña nga kat nañ leen albatazar nañ leen ca kan ba kana kana demoon kana kana demoon ci ka ci ci bi xam ngeen ko bindal leen ma ñu demoon ci kaan bi laa wax ah kana kana demoon ci kaan bi ngeen it na gaaw wax leen laa wax lu ngeen may bàyyee may xalaat xamu leen ñi demoon ca ba eh bu leen ma katt lu ndeyam de Albatassar am na ñu mu katt ñaar ci ñooñu parce que ca kaan ba lu tourné sans vidéo yi ca Côte d'Ivoire ñan ñoo jëloon hôtel yi ndax kan kana fa demoon bindal leen ma ko ci commentaire yi jaw këccëg góor la kee kattul góor vidéo yépp ay jigéen la doon kat jaw këccëg góor la te Albatassar juutalul góor ñi mu doon kat ñëpp ay jigéen lañ wax dëgg yàlla du bii di de parce que bii di di day kat jigéen di kat góor moom jigéen nag la doon kat moom albasar kii nee na Sofia kattul góor de bindal leen ma ñi demoon bu leen ko ragal laa wax bindal leen ma ñi demoon ci kaan ba ko ragal kana kana demoon ci kaan bi bala maa ñëw ci ñu ñu kat ca albasar bindal leen ma ñi demoon ci kaan bi ca Côte d'Ivoire yéen lan la baa jàmm la yéen ñan ñoo demoon ci kan bi aca mu gaaw ragal ngeen ko de ragal ngeen ko de ragal ngeen ko de gaa yi ragal ngeen ko de takk leen seen fit yi mel na aadamo albatasar bu taxawee képp ku ragaloon doo gor dama ne kan ak kana demoon ca kan ba ca Côte d'Ivoire seetaani woon match ba kan ak kan ñoo teewee match ba ba match ba jeex ñan ñoo fa nekkoon temps mais xanaa yéen mbaacoo rek ngeen jëpp mbaacoo rek ngeen di bind de ku leen wax mbaaco ci la bokk ba ngeen di bind mbaaco a ngi tooñ mbaaco dama ne kana kana demoon ci kaan ba gars yi na gaaw tuuti bi di leen kan ak kan a demoon ci bi awuma temps de ñaari tour lay gis ñetti tour wala da ngeen koo ragal yéen dangeen a ragal li ngeen di li ngeen di pës xanaa wala ragal yéen ah bu leen ragal loolu waay awa man ban awa kinne kinne Njaay Rose demoon na akkan ñafaar baram àdduna bi jërëjëf kan ak kan demoon ci kan bi ah gaay yéen ragal ngeen de eh mais yéen ragal ngeen de lu ngeen di ragal yéen da ragal ñu jël si leen wala ñu yóbbu leen police bu ngeen bindee turu nit loo leen di ragal yéen ah waaye fii amul ragal waaye kan ak kan a demoon ci kii bi ci kàmb bi loo <coughs> leen di ragal ñeme ko waaye ah ñeme ko. moli am na ku bind moli de nee moli demoon na ah amilaya am na ku bind amilaya tamit kii bind Kiné Njaay Rose hmm, am na ku bind Faatu Njaay hmm, ah hmm. am na ku bind tos am na ku bind keli Hmm, njole taalam na ku ko bind hmm, hmm. baax na daal ah, ah. baax na daal <laughs> eh. <laughs> ah <laughs> ah awuskiti man awuskiti de bu ko awuskiti ke bugg ko kat buggul kat lëf yi moom buggul lëf yi mel ne lëf yaatu bugg ko saal bandi la data yu xat yi lay kat mais data awuskiti bi nga xam ne boo yenoo sama armoire bi roof ko ci biir mu jàll moom kay gratuite ak xaalis bu bëri du ko jël awus mu bugg ko wax dëgg yàlla buggul awus barki rasulullahi ciao léegi nag gaay dama leen di bàyyi ngeen commenter tuuti rek ma yóbbu leen ci Instagram bi wan leen vidéo yi sama Instagram xam ngeen ko Adama Boss day Negri la dan am dañ koo certifié bat bu bula la am daw leen yéen ñëpp ngeen abonné en attendant bala maa taal bi sama Instagram Adama Boss Dey Negri Adama Boss Dey Negri bat bu bula bi laa am dañ koo certifié su ngeen bindee Adama Boss rek di ngeen ko gis yéen ñëpp ngeen abonné foofu ma ñëw tegal leen vidéo yi ngeen seetaan ko mais balaa boobu nag balaa boobu dama bëgg seeni commentaire hmm? gars yi demoon ci kan bi dafa mën ne leen a ragal parce que nee naa leen cent vidéo yu mu tourné Côte d'Ivoire la ko te am na ñaari sénégalais yoo xam ne ñu nga ci biir sénégalais yi nag am na sénégalais yu wow bët ñu ñeme góor bëgg góor lool. sénégalais yu gëm xaalis te gëm wàllum kattan te am ci fit lool waaw hmm? ah sama Instagram adama Boss Dey Negri bu leen ko fàtte Adamo Boss Dey Negri mënu leen a jaawale ndax dañ koo certifié kenn mënut ta jaawale ci sama Instagram bat bu bëla bi am la ma boos yaa fi nekk Adama bos de néegri mooy sama Instagram waaw commentaire leen tuuti rek après ñu dem Instagram gaaw waaw man nee naa leen kaa yi ci réew mi maa koy réglé man la Sénégalais yi bëgg dix huit mille ah dix mille personnes ñoo may seetaan ci kaa kan moo ko mën a am déedéet. dañuy wax ba teppeeku mais du lu am dara man Adama Boss Téye Negri maay wax sénégalais yi kaay leen ñoom ñëpp ñu ñëw na àgg un million tapatas gars yi mu gaaw un million tapatas bu ngeen bëggee sama yaram tàng waay un million nii rek tapate rek mu yëg na gaaw gars yi un million tapatas mu gaaw tapate leen écran bi nii un million un million yi na matuwaay dama bëgg noon yi dama bëgg noon yi noppi caga yi nekk Allemagne ak ñeneen ñi duma seen morom danoo war a xam ne Adamo seen baay la man maay woo Sénégalais yi ne leen kaay leen dama leen a soxla tey ma tegal leen dara ci taabal ji ñu ñëw ndax xam nañ Adamo xam nañ ne Adamo lu mu xam ne ko kaay yi da koo maîtriser te da koo mën a topp te information li mu ko jaral amul ku ko jaral ci àdduna bi fu ne na na loqatee ku dina ko woo nu mën a def dina ko def ba indilu lu ko ci taabal noonu laay joobee sénégalais yi su ma leen woowee rek dañu ñëw man kenn laaj ci Sénégal awma ma morom lii kenn laaj ci ci Sénégal aw ci morom du ma seen morom benn caga Allemagne duma ma ak ñi muy àndal duma ma moromu kuy taxaw fii ci ci TikTok bi dix-huit mille sénégalais laa woo ñu ñëw ñu tëj suma presque dix-neuf mille ah, waaw waaw ah, waaw man la aadama de man gars yi nag daa benn affaire. yéen sax xam ngeen ma man bu ma neexoon jàpp sama roq gën naa live de barki Serigne Babacar Sy bu ma neexoon bu ma neexoon man ma toog dix ans kenn du dégg na ñëpp ne ma fay na kenn déggatu ko boos léegi xamul fu muy taxaw su ma génnee sénégalais yi xam ne ñëwaat naa réseaux sociaux yi maay borom man TikTok bii man maay borom man saa yu ma nee tëll nit ñi xam ne man ñëwaat naa ci bi man la Adama man la waaw man la boss de loolu man rek la ko yàlla may fii waaw léegi nag gars xam nga ne 2019 ba ñëw ba tey ma samp dëggal sama bopp 2019 ba tey ma téye réseaux sociaux yi nii imagineel képp ku jaaroon foofu 2019 say ñi fi jaar bari na de gars yi ñi jaar ci réseau yi bari nan bari nan trop trop trop ñi fi jaar ak ñoo bëri laa ilaha illallah kuti kuti mbaw mbaw jaar na fi kuti kuti anam ndeyloo jaar na fi oh kii jaar na fi nu mu tuddati waaye euh, buuba da mbaaw ak kan ñi fi jaar bari nan de non mais ñi jaar fi man ku ñëw fi may fekk booy dem danga ma fi bàyyi may gën a taxaw di gën a samp di gën a dëggal sama bopp di gën a siiw nit ñi di ma gën a seetaan man rek maa mel noonu ku ñëw fi may bàyyi booy dem danga ma fi bàyyi te doo man ci man dara nag ndax man la Sénégal bëgg ma la di seetaan fii moom ku fi bëgg say affaire baax de ci boole boos man dee ma ci boole. yéen ñëpp gars yi abonné ngeen ci Instagram bi ah Adamo la boss des négri caga almaañ bi tey jommi na de ma ne ko caga almaañ bi tiit na tey de hmm? tey kay ñëpp a cee tey nag ñi seetaan ñoo bari nag bookar waalee ngi fi toppkatu kaay yi bari nañ de dix-huit mille sénégalais yi ak ñoo bëri laay ku nee ngi fi de artiste bu nee ngi fi di seetaan tey lii ma ne ko kii de bam katt gi de tey bari na nit daa mën a katt nag seex konte waa ji daa mën a katt de waa ji dafa mën a katt lool fanta ñaamaa ngi lay bëgge waaye Amina Saliou suma ja sama xarit bi ndeysaan ak a baax te mën a mayee kado suma ja ku mbiis gaa yi bëri nan de gaa yëpp a ngi fi àdduna bi yëpp te man nag li jaaxal mooy gaa yi wàllum kattante jigéen ñee ko gën a bëgg góor ñi man tey ay jigéen nag ñoo ma doon message ça va tontoir de dimbali ma ma am lu mu TV mooy kookal bett mu wax prononcé mais na ku lekk koy si ndax albax ma ne ko eh yi sama live laa koy tege amu lu may joxe jigéen ñee bëgg vidéo nekk man mosuma ko xam wàllum kattante jigéen ñee ko gën a bëgg góor ñi ay jigéen rek ñoo ma fexeel ma am ko buñ bëggee dara nag dañuy prononcé mel ne ku lekk ko yu gileem tonton tonton Ada s'il te plaît lu ma envoyé yi may dégg yan vidéo mooy kooku rek xawma Balthazar xawma Albatiax te nga dugal ko man dama ko gisagul franchement ma ne ko di nga tey de ba live bi commencé doomu xaraam bëggum kattan te te juddoo Hmm? mas naa gis lii Albatasar day sénégalais koo yu Guinée Équatoriale ak ñam yi kat nga ne dañ leen laaj naan si nee na ma bindal turu Instagram bi ci kii bi bindal turu Instagram bi ci TikTok bi mais Rans sama Instagram ñëpp ko xam Adamo Boss Day Negri nee naa leen daw leen ngeen abonné en masse ci Adamo Boss Day Negri bala commencé vidéo yi Adamo Boss Day Negri dañ ko xam benn la doo jum ndax dañ ko certifié certifié mooy day am badge bu bula bi ci kaw lu nu certifié kay xam ngeen ko Adamo bos Day négri te doo ko xam ñii di commenter sax naa war nañ ko trouver ah kan moo may bind Adama Boss day néegri te doo gis Adama bos day néegri ngeen ngeen ne amul lan amul bat xaaral ma ñëw tegal seen day ngeen xam ngeen naan amul bat xaar rek